bisimila ci ëttu yëglekaay yeeg yéen kaay def lu baax tv point com seen bokk seen xarit Cheikh Beye moo ñëw di fasal li ci ëttu yëglekaay yeeg yéen kaay tey la lundi 13 mai ci atum bi nga xam ne moom lañ dëkk dëgmal di koppan ku wax lii wax la wax la ca des en li wér te wóor moom gis nañ ci fas yi nga xam ne ñoom ñoo ca daw démb di fas yoo xam ne fas yu mën a daw la bokk na ci fas yi nga xam ne moom moo raw plus de deux ans di sal ko jub moom gis nañ ne mi ngi ko rawee ci temps wu une minute quarante neuf secondes di fas woo xam ne fas wu am yaakaar la fas wu yaakaaru la couleur bi nga xam ne moom mooy mandargaam di xacc waaye fas la woo xam ne daal fas yu biñ paree foofu daal di dawal ci nga xam ne ñoom ñoo di trois ans yi trois ans yi ñoom ne ñoom ñoo am ñetteet gis nañ ne ki nga xam ne moom moo raw moom mooy ka daan rawaat rek moo rawoon dafa delluwaat rek batt ca ndaala kookooy kan kooku daal mooy kan daanaan li nga xam ne moom moo téye trois ans yi daal kenn mënul ci moom dara waaye dafa wuyoo tur woowu nga xam ne moom lañ ko tudde mu yëgul buur yëgul baadoole yëgul say morom kooku moom moo di ki nga xam ne moom moo di yëgul buur moom mi ngi rawee ci temps wu deux minutes dix-huit secondes moom la ko rawee moom moomee daal daanaka poul boobu amatul kenn ku mu fay rawanteel ndax daal jël na raw kàddu gi daal man leen ba àgg ci lool biñ paree ñu ngi dawal ñi nga xam ne ñoom ñoo di groupe C groupe C ki nga xam ne moom moo leen raw moom mooy maamu koor ñoom daal gis nañ ne mille bu mille mètre bu njëkk bi kenn demul fenn dañoo àndandoo di naanandoo attaay di yéey leen te gura ndax ñoom gis nañ ne mille mètres bu njëkk bi daal daanaka daal am ramb mel ne ku nekk ci joor daal lañ ko doon dawee moo tax seen temps ba naqari ba àgg ci lool gannaaw bi ko rawee moom mi ngi rawee ci temps wu trois minutes quinze secondes muy temps boo xam ne daal temps bu kenn buggul la daal di ko rawee ndax bi daal dafa sori ba àgg ci lool ki nga xam ne moom moo di vedette bi di ndaanaan li dëgg moom Elisio gis na ne daal rawaat nañ ko moom Elisio quatrième la mujj placé biñ pare foofu daal di dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di crack adulte yi groupe 1 yi nga xam ne ñoom ñooy préparé pour war a daw yu open boobu nga xam ne ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di sélection ñoom la ñuy sélectionné pour ñu fekk leen di 3A ak C ak B bëpp boo xam ne am qualification te ñeme te war caa dawee rek daal di cay dawe ki nga xam ne nag moom moo leen raw tey mooy Aminu Umma deuxième victoire moom Aminu Umma tey 16 partants lañ ci la raw moom Aminu Umma moom daal def na jaloore ju yéeme tey ca Thiès gis nañ ne daal mi ko def ci temps wu 3 minutes 05 secondes biñ paree ñu daal di dawal ñi nga xam ne ñoom ñoo di groupe 2 bi groupe 2 bi ki nga xam ne moom loolu leen raw mooy fas yi nga xam ne daa demoon reposement dellu siwaat moom fas woowu di daanaan dëgg ñu naan ko laaw moom moo raw gis nañ ne daal raw na ci temps boo xam ne moom it temps bu neex a neex la moom it daal fas la boo xam ne fasu yaakaaru la ci biñ demee ci open bi nga xam ne moom la ñu jëm moom femelle waaye gis nañ ne mi ngi rawee ci temps wu 3 3 minutes 06 secondes moom la rawee naari góor daal ñoo ko dàqalee benn seconde kon daal moom wane na ne daal buñ ci àggee daal war naa mën a dugg ci crack adulte yi ku wax lii wax lee wax la ca des ndax daal gis nañ ne ki nga xam ne moom moo di moom a jéey quatre dimanche lañ ko ajoon moom lañ ko suspendre tey ñu gis ne moom tëdd na ñaar ñu baal ko ñaar li waral loolee la kenn xamul ndax du ëppan bi nga xam ne moom la dégmal moo tax ñu baal ko ñaar yooyee ndax ñaal gi jaadu na jaaduwul en ñu wér te wóor moom mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel yi ñu ngay àndandoo di coow ndax nee baal gi tegul ci dëgg tegul ci tudd penam bam jeex tak fallu Diop gisone nañu ajoon ko fi pen ba nga xamne mom lañ ko fa ajoon de ko tudd bam jeex ken baalu ko benn yoon Fallou Diop momé biñu ñuy aj Momar 4 mom 3 lañ ko aj ta fallu gis nañ ne mom 3 yoy yep tudd na ko ci démb lay jeex ci fi nga xamne mom lañ doon dawale di keeskaay ñetti dimanche am jeex na tak dimas bi nga xamne mom lañu la ci open bi boy war du taggu ken Momar nak bal nañ ko démb balat ko ji nga xamne mom lañ dëgmal bu ko defé bu ci fasam li nga xamne mom la wara war bu ci duggé dal mu man ko war dafa melni dal yef yi dal dañ ko waxtane ndax yef yi bu fekkante ni ni la continuer ndax transparence amatina en tout cas lu wér te wër moom mboolem ñi nga xamne ñoy dund course ñepp andando ŋàññi nañ leen ci bal gi nga xamne mom lañu bal ñu lañ waxon ak liñ def dal dafa xawa a sore yoo moom la passe 4 wax ak 6 ndax dañu ne kep ko xamne def nga fraction infraction bo xamne dal bu doy war la dañuy téye sa licence dal ba li dess ci saison bi doto ko war waye li ñu wone dal wone na dal daal dal daal nekkuñu ci ben non dañ ko waxoon waaye nekkuñu ci pour def fii la ñeemandi bàyyi bàyyi bonne continuation à vous à vous Dakar partisan yi takk nañu Cheikh Wade waaye kuy njëkk a raw ah gars yi génn nañu. gars yi génn nañu trois amul maal trois ans yi génn nañ ko sa peex. jërëjëf Baye Lam Tooro. moo génn waaye maa ngi seen ki nga xamante ne si moo di moo di moo di yëgul buur yëgul buur wala Maman Soda Diaw Maman Soda Diaw moo ne deuxième position waaye yëgul yëgul buur mi ngi noonu en troisième position. waaye ki nga xamante ne si moo génn moo di moo di moo di ne moo di Lam Tooro Koso Mbaye Pierre. Lam moo génn gis naa ma maa Soda Diaw ak Yëgul Buur ànd nañ waaye Yëgul Buur na bàyyi sax teel naa dëggal si boppam. teel naa dëggal boppam bi box yi génnee. ki nu ko jox mooy Amar Ba box yi biñ ko tijjee amul benn maal lom toora daa teel a dëggal boppam waaye maman Soda jaw ak ki nga xamante ni mooy yëgul buur Babacar Maar dañoo taxaw sikkinu ko gaa yaa ngi noonu toll na ci tournalu bi nga xam ni falan teg box yu njëkk yi ñëw na ñoom ñaar ànd na doon benn fas ki nga xamante ni mooy yëgul buur ak lam tooro jërëjëf Baye Cheikh nga xam ne mooy yëgal bër ak Lam Toore ñu ngi noon ànd ndeysaan di tournée tournée waaye maa ngi seen ki nga di li ngeen ngoon a mu ne en troisième position waaye ki nga xamante ne si moo nekk en quatrième position nekk ci diggante ki nga xamante si moo di moo di ki nga xamante ni moo di Mama Soda Diaw ak ki nga xamante ne si moo di yëgal bër gi génn yëgal en deuxième li ngeen ngoon a jeex na dal waaye ba léegi nga eh, eh, eh, yëgul buur moo nekk ci kanam Baye Cheikh. duma sa morom yàpp ki ngay waxal la defal lu mu mënul duma sa morom yàpp ki ngay waxal la defal lu mu mënul ilimaan ji génn na jëwriñ bi génn na ki nga xamante ne mooy yëgul buur nii la ko daan defee. nii la ko daan defee koso peex yëgul buur jàpp naa ni mooy njëkk a raw ci box nga xam moom la Omar Ba aussi. yëgul buur yëgul baaw yëgul buur yëgul baadoo la <laughs> jàpp naa ni mooy njëkk raw te moo raw ci indi. box yi Omar Ba sa ingénieur indi. Eh. waaw waaw oh, ngi tekki si mi ngi tekki si. moo man moo leen man du seen morom. koso moo leen man de. moo leen man de. koso moo leen de. moo leen man waaye lam toolu ñëw na tamit en deuxième position xare en troisième position position li ngeen gën a jéy. ki nga xamante ni. mooy mooy mooy ki nga xamante ni mooy Mame Penda bu Omar Ba Junior mu ñëw position xare ak Lamtooro danoo daanandoo si tableau bi ki nga xamante ni mooy quatrième bi di Linguère Ngoné Dieye ak Mam Penda danoo daanandoo ci tableau bi numéro diis bi ñëw na di Adja Dado. oh, oh lii li risoir la Cendra Babacar Mar Babacar Mar ki nga xamante ni mooy yëgul buur.